xale nekk ndaanaan tey mun naa ne li nga am ci làmb cër la ndax am na fi ñoo xamante ne tey yaa leen ëpp ay combat ndax ñiñ ñiñ coow ñëpp ay huit combat lañ am su may xool pense am na ñoo xamante ne ay neuf combat tey nga am quatorze combat kon tey jaadu na nga bëri ñi nga xamante ne ñoom lañ fii dégg tey keroog ba ma daanee Dame Siga numéro 2 la carte bi passé gaa laaj ma leen Papa Yade numéro 2 nañoo ñu bëree Papa Yade Papa Yade numéro 2 mi ngi may dégg Papa Yade dafa ñeme coow de na ma jël su ma jëlee su ma jëlee dama koy duma damaa ko bu doole duñ benn man ma tàppet pël. yaa Papa Yade ko ëpp ay maa ko ëpp combat ba may daan gaaroo gaar mooy ni gaaroo xam na moom balance. Papa sama doom de Papa Boy Djiné ak ñoom laa bëgg a jël revanche. te billaahi. est ma a ko génn. Papa Yade dër bi la dafa dëgër dama koy duma jàpp ko daan ko. billaahi wa promoteur yaa ngi may dégg nañ ko tëgg. maag papa yaat bon. pël billaahi wallaahi papa yaat ba am ne prime ñu tëj ci barrière yi barki Serigne Bamba du ma ko réglé deux te billaahi fu ma ko jàppee làmb jeex. lan moo tax doo ko réglé deux pas. ma réglé. doo bi non Paul man du ma mos a reculer. mais nag bëri kaay ma xam la bu laajee reculer da ngay reculer bu laajee attaque da ngay attaque laaj da nga ko def mbër yi fi wax du ñu reculer yëpp tamit dina doy waar de. non man yàlla ma reculer man làmb da may rey rek ma reculer de. am na prip ana waa rek. Hmm. waaw. buñ la koree a gis. barki Serigne du ma reculer billaay wala dañuy tase. mais léegi nag xamal naa la ko. te man Paul maa leen papa yàlla buñ bëree man dama koy daan. Pape Yade maa gën a taxaw. laajal Pape Thiam maa ko bu doole. laajal Pape maanaam des fois mbër dina la daan pël nga mun ko fuuf. mais barki alxuraanu karim Pape Thiam numéro 2 moo mun. billaay moo mun fukki Papa Yade. xëy na ñaari la fi dugg. noo non déglu ma lam moo tërali. mais billaay wallaay Pape Thiam moo mun Papa Yade. fan nga teg moo mun man non damaa xam Pape Thiam. Pape Thiam dama koo xam yow Pape Thiam ñu mu daan Pape kii mu lan daan ay caatu yoof ay tigoo xaritu yaayam caatu Yoff daanu ko de. moo daan kay. daanu moo daan non. moo daan waa. moo tax secours bi buñ recours bi génnee ñu jox ko ñu jox ko. en daal. nekk waxoo leen ne CNG ngeen fi teg ñu seen kii déglu ma déglu ma en tout cas bi ah jour combat bi xam nga soo lañ jox ndam Pape Thiam. te loolu moom solo quoi loolu moom solo. loolu moo am solo. waaw yow rek leel waaye bàyyi sa yi ngay def yow jour combat da ngay gis arbitre ne match nul ñu dem mbër mi bind recours ñu jox ko ko. nga gis mbër ñu daan ki daan ñu jox ko euh, defet mu def recours ñu jox ko parce que loolu moo tax seen gêne fi ñoom dañuy am seen caméraman te nit ñi duñ ko xam. ñii filmer comme ñun ñii dañuy jël affaire yi après yóbbu ko gaa yi xool. mais day leen nangu tamit du dëgg. waaw loolu moom dëgg la bëre ak daanu moo ànd. mais li ma la wax rek billaay wala Pape Dia moo mun Papa foofu. mais Beul waxuma loolu la man damaa war a bëreeg gars yi. yow à part Papa léegi déglu ma Papa Yade moom mu ngi fi ñu ngi ko doon dox ak diggante moom ak anti tey lan moo tax nga ciblé ki nga xamante ne mooy Papa Yade anti moom waxoo ay moom moom na xale bu fi taxaw moom moom du la man amul anti amul amul Papa Yade amul Tafa Mbër ñooñu ku ma ci am baax na petit ñaar mii sax waaw bu ñëwee ñu bëre bulldozer bu ñëwee ñu bëre waaw peut ñooñu ku ma si bañul bi laa war a maa bañ. ëpp ñu ma victoire ëpp ñu ma coow ci làmb waaw ah, na ma bokk ci làmb Mbaye Tine Junior bu bëree mu neex bu bàkkoo mu neex waa gunaas dañ maa yónni yàqamti ma barki yëngaloos de ah, yëngaloos waaw ah, dig victoire la am de man ñanga ñanga maa ko daan xam nga ñanga xale yi ngay laaj dañoo danger xam nga loolu mais garaawul pël man guddi ñu ne taguma sama bopp de mais booy ku mas jël ma daan la foo ko teg te bu leer nañ laa a teg. fan nga ko teg. waaw fu leer nañ laa ko teg. ci entraînement nga a teg wala ci mystique nga ko teg. non non baay entraînement doole a tewee nga am mystique moom ban mystique entraînement doole. ak mën a bëre boo naree gañe mbër ci mystique. su ma gañee. gañe mbër ci mystique. yàlla na ko daan <laughs> booy ku si jël. waxuma la boo naree gañe mbër ci mystique. lamb daal pour lamb daal mystique si la bokk ndax fi ko fekk. kon da ngay laal ay mystique jàpp man de mbër ma jël fi na doo ko dellu kon yow say ko teg non non man a am entraînement da nga naan su ma naree gañe mbër ci mystique yàlla na ma daan non non non non pël ma loolu da ngay fas nga ne da dem ci paa ñu lay fas ah, ba ñàkk fas ah, fas kay ci làmb lañ ko bok da ngay def lépp ah, fas ci làmb la bokk fii lañ ko pour man mbëri pour man cat ak làmb yooyu ngay sam mais da ngay da ngay fas waaw waaw fii lañ ko fi la nga fekk de. mbaytin kan la mus a xeexal ban mbër la mus a xeexal ba kaawa ko. mbaytin bëri na maag ñànga. waaw ñànga dama ko dóor ba mu. waaw billaay wala ba mu daw génn géew bi kay xaytaa ngi di moomu yóbboon laa mu ja. après stade Demba Diop jour combat boo ñaa Garga Mbossé man lañ jox victoire bi. arbitre sifflé na mbaytin numéro 2 moo féetee suñu day joor moo jàkkaarloog ñun ñànga moo ñu wan ginnaaw. ñanga ak mbayti numéro 2 combat bi combat bu saf sàpp lay nduru bu kenn may sa morom flan ñanga mi ngi dóor mbaytin mi ngi ko teg bopp ci épaule ñu ngi leewtoo ñanga kor na ko day dóore ah dóorul heureusement ko arbitre atten arbitre jox na benn avertissement ñanga mbaytin dem na jëli ñanga ñanga téye ko ñoom ñaar daje nañu tegante ay bopp ñanga ak mbaytin ñanga ngi arrière sàng da nga jëloon benn avertissement de ah bu baaxul day génn génn na. arbitre sifflé na waat Mbaye Tine numéro 2 eh waaye eh, ñàng roofu na door na ko benn droite Mbaye Tine xeex na soobu na Mbaye Tine mi ngi door ay percute léegi daf ko bëgg a forcer mais ñàng bañ na ñàng rasu na ñàng téye na Mbaye Tine téye na ñu ngi doorante ñoom ñaar arbitre signalé na temps bi jeex na. arbitre jot na victoire mbayti numéro 2 ñanga dafa arriere ba génn saaku yi ñu jox ko 5 avertissement. mënatul. mënatul daa ruux sonn mënatul. ndax nga yóbbu waaw gaa dóor yu métti laa ko dóor gaa jom victoire. te dafa am bu duggoon seen kër nga jël. léegi léegi ma reeree ko. dafa mbër rek laa bëgg a bëreel nag. anti moom nee na du leen awale ci yoon moom xale bu taxaw ci kanamam moon la lim la mën ak ku mu tuddee. <laughs> ah nee na moom nee na moom dafa mën a bëre bu bëree mu neex bu tuusee mu neex ba pare day indi stade bi da koy taaral ba mu taaral. waaw dëgg la ñooñu bokk ma si dëppal man moom maa nekk mbër moo xamante ni man moom loo doon doon daanaam bu am ne prix billaa wala san daanaam du feeñ. nooy def waaw ah, ba may bëreeg moom ay champion ko indi ay jën keer la da ngeen numéro un ay boy kere man ay boy rek laa àndal billaay wala mooy saago di def lu ne am ne prix billaay wala lu metti laa ko tegal ah bañ ah foo ne duma ko xanaa daan ko waaw premier combat maa ko daan ci làmb nga jóge waat ci combat nii nga am victoire tey nag dama bëgg sérieusement nga wax ak say adversaire man bu wax man lan nga leen di wax nee naa la nongoloo mii bu ñëw ñu bëree yaa ngi koy dafa mbër mm-hmm. Pape Yaay numéro Podigna bulldozer wala brisé mais numéro 2. saa may dégg anti anti bu ñëwee ñu bëre. arki sëriñ ba bu ñëwee ñu bëre. anti nag anti li nga wax léegi maa ngi yow léegi maa ngi koy soog a gëm ba ma fi toogee ba tey maa ngi tudd anti amul coow non anti amul coow moo tax gars yi duñ ko jël xam nga anti amul coow ba ba yàlla li ma dégg amul coow moo tax gars jël. isa man su may jël mën nga teg ne anti amul coow fan nga teg ne anti amul coow. anti barke sëñ ba amul coow bël. Ah, ah, ah, billaay amul coow man daal su ma soon ñooñu laay bëre boobu noonu ñoo bu coow fuuf Papa Yade numéro 2 soo moomee baax na Tapha Mbeur baax na wala nongoloo Podigna Bulldozer waaw ñoo ma gënal quoi. instant bi euh, naka nga gisee a wax ci làmb ji. waaw moom saa moom làmb dëgg yàlla pour làmb moom dafa yàqu. dafa ndax léegi promoteurs yi nax léegi promoteurs yi nga xam def loo xamante ne xam du yoon quoi. comme lan avant mbër yi bëre xam nga mooy di joxe xaalis. caution barke Serigne Bamba loolu noonu moo loolu. bilaa wala man de man dëgg yàlla moom promoteur ba mooy dëgg duma la jox dërëm danga may fay jox ma bëri la. mais du ma promoteur da laa proposé xaas ma jox la. waaw ah, dëgg la na fi. mais man ñi la ko jot a def noo def ak ñoom da ngaa tekk ak ñoom wala. dëgg yàlla combat yi may bëre yëpp. mbëri man mbëri ñoo may laaj. mais tamit est-ce mbay Balla Gaye daaw ba may bëre ak moom. Assane Ndiaye moo ma woo. waa ne ma carrément sa combat yi waa laa bëgg a dëgg xam nga yàgg mbay Balla Gaye ñu waxaale abale ba ñu waxaale ma abay ci laa dem mu jox ma avance mm-hmm. waaw. Ah, moom ah, dëgg yàlla waaw dama damaa dem mu jox ma avance dëgg yàlla moom bool moom. dëgg yàlla borom moom dëgg yàlla sàmm yow sa patron moom dëgg yàlla borom baax la ko waa moo kii Seer Jaw xam nga ñoom tamit. ay borom bu baax lañ ko waa waaw mooy loolu maa leen nuyu. boo amee loo koy pël man nag fi mu ne instant bi ñeenaa la pël 14 combats laa bëre am naa 10 victoire man maa war a bëre grand combat non déglu ma man grand combat laa war a bëre. Ah, non non bëree gu ma grand combat mais naa grand combat fu yee Bambey laa bëree grand combat pëdi moo ko tëggoon man ak Thiatou Bambey. léegi non non xew moo ko mais man. grand combat arène nationale arène laa bëgg. booy di su ma Mbirkilaan tëggal la grand combat doo rek. Mbirkilaan moom dee Mbirkilaan du dem de man kay fi mu ne arène nationale lek pël xoola te fii su may dem làmbu ja gars du jël oto de ñi leen di jaar njàpp tout droit ba arène nationale télé bii ah fan fan. en ah, damay dem Espagne. non waa mbir gi lan kay non mbir gi lan kay naa fay dem di ñaanlu di rek di ñëw waaw <laughs> waaw mbir gi lan kay ay kër ma jabel yooyu ah, ay ngeer Moussa Gaye naa fay dem di ngemb rek di ñëw làmb ji waaw lu ñu war a changé bëri na pël bu rafet ndax gars yi xamal laa bëgg ñu bàyyi mbër yi ñuy tànnal yoon làmb ñun ay xale lañ dañoo war a bëri suñu biir bëri na ay ay ci mel ni sa mbër mi Arafaas Arafaas dañ koy tànnal yoon Arafaas xam nga ni kooku combat bu mu jël rek ah sa mbër la kay man xam naa ci dara kay sa mbër la de waaye fi mu ne xool na ma jël ñu bëre pël laaju ma ko de raw ci làmb waa xëy na mooy loolu quoi mais barki Serigne Bamba Arafaas maa moom combat bu neex la combat bu neex te xoolal combat boo xoolal pël ku ko tëgg ma jënd la trois blocs fii laa ko waxee nag si Baol TV. ku ma woo ne ma mag arafal ma jënd trois bolok waaw ah, wow xolo arnasale fii laa koy bëree arène nationale dama koy diw ba mu fet jàll billaahi wallaahi gunaas ñetti mbaar baxdaar guy gay ñëpp a ngi sama ginnaaw waaw waaw làmb li ñu war a changé pël waaw làmb waaw làmb léegi dafa yaaw ndax léegi yenn promoteurs yi gars da nga leen di di leen combat ñu leen laaj caution bëri na quoi moo ko yàq waaw ñë waaw ko d'accord naa kay Boy Niang Balla Gaye Reug Reug Bombardier d'accord naa kay combat la normal non non non loolu combat loolu moom dëgg yàlla àddunaa ko soxla kooku loolu lam combat day neex. Mhm. waaw ama seen guy gi tam moo gën a jaadu quoi mais Bombardier ama seen doom coow ndax Bombardier moom xam na rek mooy loolu Bombardier daal bu bu bëggee combat mu coow na jël Reug Reug waaw ñoom ñaar ñoom ñaar dëgg yàlla mooy combat boobu coow guy gi ama seen Balla Gaye 2 Boy Niang Modou Lo Ama Baldé non loolu moom bu taxoon moom pël moom laamu moom dina neex moom. Lac de Guiers 2 Gris Bordeaux sama patron Lac de Guiers numéro 2 nañ jox Gris Bordeaux pël kooku sama xarit la. sama grand la sama patron la na combat moog Boy Niang ñoo ko ànd lépp fii la mu ñëw di gaari otoom ñuy dem Tivaouane Peulh ay 2 heures du matin 1 heure war na sama combat bi tam jàpp na si la dëgg numéro 2 maa ngi koy ñaan ba mu dee combat yàlla may ko ndam. Alioune Seye numéro 2 Papa Dia waaw waaw combat boobu noonu mais Peulh xam nga yi ñu ngi naan ay. ay jaaj dafa dem kii quoi carte d'appui mais man billaay gisuma fa carte d'appui bu dëgg neexee rek trois appui moo fa am trois am mais mais jëli moom dëgg yàlla Alioune Seye da ko daan jël leer waa jëlu leer nañ mais billaay wala man su may seen dafa am du ma ko jox ndam dégg naa nag jox nañ ko ndam mais loolu du yoon waa ndax Papa Dia da ko daan jëlu leer nañ non non waaw commune la kay du yoon barke Sëriñ Bamba du yoon billaay wala Papa Dia da ko daan pël billaay dëgg neexul quoi. ah mais mais mooy loolu war na Serigne Touba xam nga dëgg moom bu waaw bu ñëw rek dañ koy wax mais Papa Dia nag moo daan mais nag di ñaanal sama grand sama papa Alioune Seye numéro 2 combat ban waaw reculer mais boobu boobu moom boobu moom non boobu moom Sénégal Ndiaye ñëpp a xam ne waaw dafa leer nañ ndax foofu non non ma non déglu ma pël waaw waaw déglu ma waaw. waaw mais mais Paul déglu ma la dëgër booy ñaaw dafa leer na nañ ndax foofu arbitre moo sifflé mais arbitre bi laa wala bàyyi woon jëli moom day gën a leer mais arbitre moo sifflé waaye ne carrément booy ñaaw daan na après ñëwaat après mën a jël amul mais billaay wallaay bu daa billaay bu bàyyi woon la dëgër daan jëli bu leer kan. waaw waaw loolu dëgg la moom fi mu ne waa CNG waa CNG c'est le maître du terrain waa CNG ñoo yilif ñëpp comme da Tafa Mbër lañ jox ndam li di nga ñaan ndam li jikko Alioune Seye numéro 2 boo ma dee yàlla may ko ndam mais mais nag ah waaw mais doy na waar quoi mais sama papa sama grand sama mag Alioune Seye numéro 2 di nga ñaanal ndam si combat moom ñàkk jaaz ndax kooku pël ñun bu ñu amee combat chaque jour moo ñuy yee chaque fajar kii xam na li may wax. barki Serigne Bam pël xolo kooku su may wax si moom sax damay bëgg a jooy ndax na xolo ndax billaay walaay wóor na Serigne Touba grand bu ñàkk ñaa la pël xolo billaay sama combat man ak euh, Dame Siga numéro 2 chaque seconde ma de moomee woo téléphone kar billaay walaay ñu dem xolo montagne ne Tivaouane Peulh may liggéey loolu métti Alioune Seye numéro 2 maa ngi koy ñaaral si diggante mook ñàkk jariñu na Serigne Touba wuyu ma pël mention nag. spécial sama benn paa boo xamante ne nii ah wuy ma fii la dëkk ñu naan ko Père Pape Diouf wóor na sëriñ tubaa Mbacke benn restaurant la ma yóbbu fayal ma fa lekk wër na sëriñ Touba xoolal xoolal ay ginaar ak hamburger vermicelle ak ndambeeg session ak bi lu ma neex laay lekk. billaa wala di sant waa restaurant bi la ñoom Biige ñoom Ayda Mer Ndey Saaxo ñoom ñëpp maa leen sant. juróom noonu damaa dóor njëmbe ñebe 800 teg ci fermicel barki Serigne Bamba bu yii booru maa jige contact xiif ah, añ bi rek añ bi rek des su ma añee sama gaale xam nga suur su ma ñëwee mbooloo ñaari waaw ñaari paraat laa fay commandé fëgg lépp maag sama doom yaay waaye des fois sama doom yaay day suur ba maag bool ma waaw man lekk lépp. mbay guy gi ñoo ko mu rek ñoo ko dàq lekk de mbay guy gi sama doomu yàlla mais wu ma ñoo la dàq coob ngay këllam ni yow waaw waaw 800 ñebe 800 vermicelle laa fa lekk waaw ah. non ginnaaw zoob laalu ma ginnaaw ko nday bari ñaar rek laa dóore mbay guy gi non mbay guy gi mooy loolu <laughs> kat amul nga waaw yow bay ñu day sóob rek ne loolu mënu ko lekk non mënu ko lekk day non non ak mburoog ton deux kilos non mbay gi nag mais mooy loolu de <laughs> day sóoba lekk waaw waaw gis nga internet rek lay bégal moom nee la cumukaa bi moom pël dëgg yàlla may damay njàmb de man moom maanaam man su may combat man sarax yi ñëw bi sama xaalis waaw ndax man su ma demee sëriñ soo ma digalee sarax du ma taayal même billaay soo ma digalee nag sax lu mu lu mu met dinaa ko génnee même bu dee nag bu waa cent mille sax dinaa ko jéem a jënd sarax ko waaw ndax man moom ndam moom jamono ji moom ma gën a lu ne pël làmb léegi xam nga la la daan dem daanu toog non jaraluma ko moom comme def ay ay yenn sacrifice yi dëgg yàlla moom pël loolu làmb jaraluma ko waaw te kii xam ne li may wax bu baax wër na Serigne Touba yàgg naa toog di ko ko wax ma ne ko man làmb jaraluma lii waaw wër na Serigne Touba ah ah ñi kay def ñoo mooy loolu ñi koy def pël da leen a wax ni leen làmb temps bu ndaw la te xama mais man moom dëgg yàlla mosuma koo def waaw mosuma koo def waa duma ma sacrifice mais man daal ku ma jël combat dinaa am samay sëriñ muslu mu dooma jàpp si gàllaaj waaw mooy loolu waaw ñëw duy stade bi ba mu fees fi mu ne xoolal pël ar national laa namu man maa ko namu man samay rawaan moo billaay moo nam foofu ar national ah non wóor na Serigne Touba dama ko namu pël ndax fi mu ne xoolal Gunaas Bagdad ñetti mbaar Massa Ndiare Massa Bees seen Colobane ñëpp ngi xaar sama combat grand combat waaw waaw di waaw di waaw pël li wax ñëpp waaw di ñaanal ñëpp jàmm sama gars yi toog fii ndax man awma loolu ñoom Malick Ba Seras maa ngi koy sant di gërëm di sant sama doomu ndey ala subeeru séeri ummi frigoris frigoris bi nekk fii gunaas euh, wuyu ma pël mi ngi nii ñun ñun fii la ñuy toog mooy jëndal ay añ di jox ñi naan ataaya di jënd ay boisson mi ngi nii ala subeero champion la nag waaw mooy loolu ku bëgg frigo bu baax ñëwal fii Médina Gounass ci kaw montagne bi waa frigo yaa ngi nii yaa ma gën a xam gaana ah. Malick tamit day jaay ay ripaas xayta mi ngi nii sama doom rek daa am combat premier mars di ñaaral ndam moom ak booy ñaa bu jumbo moo waaw di ko ñaaral ndam lu sedd guy non combat bu diisul wuyu ma pël te bu dégg déggoo ma de dégg nga euh, te bu jour ba ngay xam ne xool li liggéey du bëri ñàkk jaruñu pël eh, ñàkk yow di xam ne lépp dëgg la pin pël fi na mafia bi daa am doole de wi ma sama mafia bi waaw waaw mafia bësal bii bi loolu laa bëgg gars yi waaw gars xam ko guddi gi ku jël sama avant dama lay def cere ak meew def la benn voyage lu leer laa lay wax nii eh papa yaa di ma jël jëlal avance bi lan lay tàppet wóor na Serigne Bamba soo ma jëlee ma duma la daan la man Mbaye Tine maa wax loolu. te bu la neexee buñ bëggantee stade ñu maye ko si biir stade bi ak yow. bi laa ma yenu la ba ci kaw doole si biir senti ah, ah senti maa la mën maa la bul doole man xale laa dama am jàppale bokkuma ak yéen maa la ëpp paquetage ba ma wóor na sëriñ baa maa ngi sant sama doom nday baaba wiw ma pël man nag daam ñu may jàppale dama leen sant di sant bay di ba maire bu Guna sama combat bi ma dama xaalis bu bëri maay sant mbay difoncé jàpp na si komba bi ak magam Madiama Mbuub ak grand Talla sa benn grand bokkum bu nekk Lagrosse kooku moom mënu ma koo fay ndax ndax dama am mooy jàppale maam góor magu duubul moteur ay tisi lay jaay góor yombul ay tisi lay jaay tey duubul moteur numéro kooku kooku double la tuddee boobu quoi mais nekkul numéro 2 booy xool Balla Gaye mais mais pël wóor na sëñ Ba man tey sax fa la ñu waroon defee émission bi mais xam nga nu mu fa demee la ko waaw dafa maa woo ne ma carrément instant place gaan dafa bari nit quoi loolu moo tax instant may dégg waaw mais maa ngi koy sant di ko gërëm sama yoon combat xaalis bëri la may may ku bëgg tissu bu baax jasineer borode Marie Gueye lépp lépp. ku ko bëgg demal marché bu bees ñëw non pële sama gaan nga mais loolu déglu ma déglu ma mais loolu mais mais da nga siy jàpp pël mais da nga siy jàpp Assane Ndiaye bawol bawol sama xarit la Assane Ndiaye ne la maay mbërëm Issa may dégg maay sant waaye gër waa ci fam combat ñëpp yàlla may leen ndam Abdou Diouf nag déggoon ne la am na combat moo giri de moo giri day tëdd moo loolu loolu ne Abdou ne combat ñu ñaan le ko lonkoo de maag sama doom day ñooy ànd matinalu 4x4 am lay dawal Ford Ford la yor Ford boo xamante ne nii 12 millions lay jar si la ñuy yéeg di dem dina chaque jour liiru jaan am na combat moog wulli di ko ñaanal ndam mais nag wulli dafa lay wax ne la combat bii fiiru Gàmbi de fii Pikine la wulli sama doomu ndey nga nag wulli sama xarit nga nag sama waay nga torop mais liiru fii moom dalay daan ay jour non non non combat bi moom liiru xoolal ñëpp a koy dar ñëpp a billaay ñëpp koy dar combat bi du yomb pël liiru nag li ko ñaanal ndam ndax waaw ndax sama grand bu baax la heure su ma amee combat day ñëw fii no déglu ma heure su ma amee combat day ñëw sama gàlle conseil ma di ma waaw di ma jàppale si matnaal bi liiru daal moom mooy monument géej waaye di sant champion ne géej waaye yëpp ñoom Balla gay numéro 2 Lac Guiers numéro 2 Alioune Seye numéro 2 xam nga di ñaanal sama doom day daa am combat cat yàlla mooy ko ndam majji majji ay ñoom Mathia Perala ñoom Boy Pire xama xama sama doom de Maguette Seck tamit yàlla may ko ndam ay ñoom papa booy junne yaa bi yàlla may leen ndam waaw di ñaanal ñëpp jaam pël xolo mooy loolu man daal na ma gars yi jël ñu bëre ndax damaa war a bëre grand combat arène nationale am naa dix fois na ma booy jël ñu bëre ma defar la leen cere ak meew bi waaw cere ak fi mu ne cere ak meew bi mooy ñëw mais pël waaw mafia bësel bi baaba moo ko jiite mi ngi nii bu ñu amee combat moo moo yor ay booyam sunu moo ni jàppale ñaari laay xam nga ñoo créé fecc bi baabaa ngi nii moo ni jàppale xam nga barke Serigne dama xam nga gaa yëpp ñu ciy jàpp di la wax waaw mooy loolu. waaw mais luñ ciy yokk gaan bëriw ñu ngi sant ñëpp rek di gërëm ñëpp rek waaw booy nii champion la te bu gëmee boppam champion lay doon parce que fi mu juddoo la. fi mu juddoo goxul làmb la te xam la bu gëmee boppam barki alxuraan karim champion ñeme na li muy def te nangu na entraînement waaw suñu booy la suñu lépp la nag xam nga di la sant bu baax për bu rafet sant Allah di sant Malick Badj Seras waaw man le premier mars laay bëri incha allah man ak booy ñaa bu jimbóori dara méttiwul na gars yi ñëw rek rang muy gaaw la xaar rag xaar ñaax la dañ leen di par benn benn la rek waaw yaa ma gën a xam xaar ñaax la rang muy gaaw rek incha allah.